mais aujourd'hui le président de la république Macky Sall unanime euh, quand même ci lu troisième candidature que mën na sommes pas également mu mel na la tontu ak ku tontu ñeneen yi nga souvent brandir sur les plateaux que il n'a pas le droit juridiquement de se présenter une troisième fois mhm. le problème juridique ne se pose pas mhm. Bonne pression Benen ngeen pour que cette troisième candidature bobu du du alors pression bi bon bëgguma di tra di trahir ay secret du ma sax joxe date parce que du man maa war a joxe date mhm. mais y a ngi dégg depuis quelques temps ñuy wax la plateforme des forces vives de la nation mhm. pratiquement tous les partis d'opposition ñu ngi ci pratiquement am na quelques exceptions force société civile ñëpp ñi nga xam ne affaire troisième mandat daf leen soxal ñu ngi ci y a même beaucoup d'identités remarquables ñoo xam ne yoruñu mouvement yoruñu parti yoruñu dara dañu ñëw nekk ay personnalité bindu pour bokk man bi may mujjee gis liste bi on était 104 xam nga loolu bëri na dinañ ko lancé ci fan yi après gars yi dinañ génne communiqué de presse joxe dat ci fan yu néew dinañ ko lancé loolu nag mooy Sénégal bi nga xam ne moo fas yéenee jàkkaarloo ak président Macky Sall ak ay nitam pour que troisième candidature du fi am man waxuma ko troisième mandat troisième candidature du fi amee loolu mooy pression bi léegi nag du ma ñëwaat ci aspect juridique yi parce que comme ni nga waxee wax naa ci yu bari mais ci élément yu plus yi dama ci génn rek ñaari incohérence buy wane ne ñoom sax li wax parce que ñoom seen argument c'était de dire président Macky Sall dina nekk candidat wala du nekk candidat nañu dem ci conseil constitutionnel ñoom ñoo koy wax mm-hmm. mais ñoom ñuy di wax loolu lan la wax président lui-même defee interview avec l'Express le 20 mars ne la question juridique est réglée ne se pose plus si la question juridique est réglée looy wuti conseil constitutionnel donc nous, même dans leur propre argumentation dañuy am ay incohérence parce que le président Macky Sall l'autorité suprême bu la question juridique est réglée mooy mom ngeen baal ma cadre kàddu gi le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel wala boog jël na ay dispositions am ba bu conseil constitutionnel. est-ce que vous yaa ko déduire non, docteur. non non mais s'il dit que là... non xam nga ñi doon njëkk wax sax conseil constitutionnel Nous, nous nañu wax ils sont dans la logique juridique a un problème ak diw dinaa dem ci juge mais Macky Sall li mu leen tontu moom mooy am naa problème ak diw mais le problème est réglé soxlawul loolu may dem ci juge bi donc président Macky Sall dafa weddi ñi di wax nañ dem conseil constitutionnel benn. mais deuxième bi te loolu mooy élément nouveau ci affaire candidature bi loolu dama bëgg sénégalais jàpp ko parce que nag naxaate bi foofu la nekk et pour moi, c'est choquant. Mm-hmm. parce que le 15 février ci la président Macky Sall def discours mooy bi muy wax ne mënatul def mandat cinq ans il est obligé de faire sept ans parce que conseil constitutionnel moo encore. wax donc bu muy wax loolu le 15 février 2016 yor na avis décision conseil constitutionnel Je mhm. mu wax ci li mu ci wax bu muy interview le 20 mars 2023 jàpp leen ñaari date yooyu 15 février 2016 20 mars 2023 ñaari bés yooyu daf ci wax conseil constitutionnel il la wax document conseil constitutionnel bi ma wax dafa wax ne mën mën naa def troisième candidature xam nga moom moo ko wax mais ci diggante ñaari date yooyu wax nañu vingt fois que ne moom xam na ne mënul nekk candidat élément bu bees bi muy indi mooy moom juumul fakastalawul te yoo daf ñu doon nax parce que bi mu koy wax 2019 di ko wax 2020 di ko wax 2021 yor na këyit bi nga xam ne moo ko permettre 2023 mu ne ndekete la question juridique est réglée donc pour man débat boobu dinañ ci gën a ñëw plateforme bi dina ko jël en charge bu baax a baax te bu soobee yàlla dinañ jàkkaarloo ak ñoom mais dama bëgg rek sénégalais xam ne lii réew du doxee nii loi yi ngeen doon wax sànq bu dee réew yow parce que dañu la dénk armée dénk la gendarmerie yow nga nekk patron juge loi bu la neex nga respecté bu la neexul bul respecté loolu du réew Sénégal warul mën a doxee noonu te loolu gàcc la ci ñun mais nag dinañ fu mu ñu woo dinaa cël foofu laay terminer fu mu ñu woo ci plateforme bi dinañ ko ci wuyu bu ñu woowee ci droit dinañ ko ci wuyu bu ñu woowee ci safaanu droit dinañ ko wuyu ci safaanu droit parce que président ci boppam wax naa ko keroog je le répète ici moom bu demee jël dossier wam gàddu cartable am sol xaftaanam ak boneem jubal conseil constitutionnel waaxu ne day déposé man j'assimile ça à de la désobéissance civile parce que maanaam xam na ni moom instant bi muy dem di déposé dafa bëgg sonal waa conseil constitutionnel sonal Sénégal mais xam na ne moom amu ci droit ah, alors vous nous dites candidature sa bosse également peut-être bu ko temps bi mhm. euh, a sa candidature des postes directeur de campagne élection présidentielle 2019 su qu'il ne jumuma un moment Idrissa Seck aujourd'hui encore mu mhm. euh, si politique par des postes effacés encore postes encore ak mhm. euh, il est dans une cohérence moom Idrissa Seck nek ci euh, Benno bok que nek ci gouvernement euh, ba ñuy élection ñuy natable il est candidat ou pas. man la seule cohérence gis j'attends Idrissa wax ne. <laughs> ñun. <laughs> bu Diouf. pas le faire. mais cohérence man gis cohérence juridique nañ ko taxawal Euh, demal nañ ko Marseille taxaw nañ ci ah. cohérence juridique. non du juridique cohérence politique. politique d'accord cohérence politique. mooy ñun taxawal nañ ko ba ñu waree ba ñu ko waree taxawal man nekk naa porte parole deux élections présidentielles bind naa ay programme ak waa cadre yi yoroon naa cadre lu nekk def nañ ko trois fois ça n'a pas marché na ñëw jàppale ñu. ñun jox nañ ko cër. électeur bi ba jotee nañu jox ñu ñoo jàppale dugg ci mbañ gàcce bi ñu dem élection. Mhm. nga nekk ko Idrissa Seck nekk ko électeur bi dugg ci mbañ gàcce bi lan moo war a tax mu choisir Abdourahmane Diouf bàyyi Idrissa Seck. parce que Sénégal dafa toll foo xam ne dañu soxla un souffle nouveau dañu soxla une génération totalement décomplexée boo xam ne ñeme na wax lii ñuy wax. Mhm. maanaam dañuy teg loi sur le patriotisme économique dañuy développer suñu secteur privé ñu benn étranger mais suñu bopp moo ñu gënal amuñu benn complexe loolu laay woowee une génération d'idées du Abdourahmane Diouf rek nag mais Abdourahmane Diouf ci la bokk boo xoolee classe politique Sénégal dafa def deux parties dafa am ñoo xam ne ñu ngi xalaate comme Sénégal na mu daan fonctionner avant. comme il Idy c'est dépassé bu ñu la déggee. man daal ñun ñoo xew. <laughs> ñun daal ñun ñoo xew. il est ah, xam nga man du ma tooñ kat. voilà man du ma tooñ kat mais ñun ñoo xew léegi nag bu ma waxee ñun ñoo xew mais bëgg <laughs> mais je pense que et je le dis très sincèrement élection 25 février 2024 mhm. c'est l'élection de notre génération d'idées les panafricanistes les souverainistes ñi nga un complexe vis-à-vis de naar vis-à-vis de turc vis-à-vis de français bi ñi nga xam ne xam nañ Sénégal peuple bu xarañ la mais fi ñu toll ci développement gàcc la ñi nga xam ne accepté nañ jàkkaarloog tubaab bi défendre suñu ay intérêt te amuñu luñ ciy tiit man gëmuma ay réalité du pouvoir waaw fal nañ la mais boo toogee après gëmuma yooyu li ma gëm mooy yow yaay déterminer sa bopp en fonction de sa fulla ak sa fayda toujours nag ma wax ko c'est li ma c'est pas prétentieux hmm. ñun jàpp ma ne ñun ñoo dàq jàng gars de jàpp ma ne sax ñoo leen gën parce que ku ci nekk am nga say qualité ak sa ay défaut mais ni ñuy gisee àdduna ñun ak ñoom ni ñuy gisee àdduna ñoom ñoo bokkul ñu te li may wax nii du ay question d'âge am na ci jeunes yoo xam ne noonu la ñuy xalaate comme ñooñu comme grand yi noonu la ñuy xalaate ñoom ils sont toujours dans le moule français dans le foule nous sommes une ancienne colonie dans le moule mënuñu lii mënuñu xam xamuñu lii alors que le monde a dépassé ça. moo tax nga ne génération d'idées. yow daal c'est une génération d'idées. yóbbu nga Idrissa Seck retraite bu ñu la déggee. non yóbbu ma Idrissa retraite man sa maa yóbbu sama bopp vers le futur. <laughs> c'est-à-dire que devant le candidat. du passé Macky Sall. Abdourahmane Diouf veut incarner une candidature du futur. totalement décomplexée. Idrissa Seck que tax ñu xam figure yu mel ni docteur Abdourahmane Diouf moo tax ñu ñu xam ñu mel ni ñu docteur Abdourahmane Diouf Déthié Fall Thierno Bocoum. et Fatou li nga ah si au hein? moins il a eu le mérite. mu mm. responsabiliser il a beaucoup de mérite. Oui, nous, sommes, nous sommes très méritants. Absolument. nous, sommes très, ah. très, très, très méritants. Voilà. Toutes les conditions pour être candidat à une élection présidentielle, je les remplissais. En 2019, 2012 Je remplissais toutes les conditions. Est-ce waaw mbooloo dañ koy wuti mbooloo dañ koy wuti xam nga xam nga mbooloo mi danga koy wuti saa à dire que li ma ci bëgg a man li ma bëgg a indi wax bi c'est une question de générosité mm-hmm. yow nekk nga ak nit mu wóor la ne lii gënu la ci yay mais nga gën ko ko yéene moom ko gën sa bopp ñun cër boobu laax ne joxe nañ ko tey Sénégal fi mu toll Macky na dem wuti un jeune bañ a nekk kandidaa mu taxawal ko loolu mooy jàmm ci ñoom yeneen grand yi. na ku nekk bàyyi jeunes yi nga xam ne yendul lañ leen fu nekk. ñu bàyyi ñu dem mais c' est vrai. c' est la vérité. man je sais xam nga man ku leen bàyyi sax ngeen di Abdourahmane ay Amath Dansokho ay ay Moussa Fagne. mais man je sais Wade ils ont joué un rôle très important. mais bien sûr Wade dañoo indi ko mu présenté wu en 2000 te boobu ay mag lañu. waaw mais man man j' ai man man j' ai 53 ans. Macky Sall bi mu nekk premier ministre il avait quel âge <laughs> Macky Sall il avait 42 ans bi mu nekk premier ministre. Idrissa Seck il avait 42 ans bi muy nekk premier ministre mais ñun bi ñu am 42 ans ñu ngi leen di liggéeyal ñoom léegi nag ñun dañuy war a nekk di leen liggéeyal ba kañ ñoom ñoo ñu war a delloo njukkal. li may wax nag je Idrissa dafa war a ñëw jàppale ñu suñu candidat yi encouragé ñu euh, parce que bañ ci tolloo dañ ko encouragé waa réew mi nag maa ngi leen di nuyu samay <laughs> nit rek fa nekk c'est tey jii aussi tam c'est beau euh, yi ak mhm. yooyu am na benn jafe joo xamante ne mu ngi taxaw fii te booba tey du ñu dégg yenn ci ñi waaye politique yi di ci wax lu toll nii wàllu parrainage bi gis nañu à chaque fois day causer problème ci yenn candidats yi mhm. tey jii naka ngeen di def euh, pour jàll ci parrainage boobu ñu gis ne ne aussi tam day bokkaat xam nga parrainage Sénégal Sénégal ñoom ñoo ko tey bindee ko noo xam pour juste sélectionner candidature yi la éliminer ñi ñu bëgg a éliminer yéen seen waa kër gi xam ngeen problème bu pare <laughs> sama sama sama frère Bougane chaque jour ñu dal ci kawam te pourtant man day sama bopp laay xam gëwuma ni Bougane ñàkk na ci élection législative trente cinq mille personnes yu ko paree. Mm. c'est ma c'est mon intime conviction Bougane mënul ñàkk ci Sénégal 35 000 personnes ñu ont parrainé mais problème bi parrainage bi mooy ñoom ñoo ko tey dañuy jël juriste ku mel ni man di ko def loo informaticiens, informaticien ñu jël informaticien di ko liggéeyloo problème mu juriste léegi machine bi lu mu génne amul recours mhm. machine bi même bu jaxasee mélange génne loo xam ne dara baaxu ci dara cohérent wu ci kenn du ko accepté du ngeen Bougane mu ni moom deful Sénégal de la diaspora si j'ai bien compris effectivement mais biñ koy expliquer lu tax tel parrain boo déposé tel pays de la diaspora alors que faut mm. donc maanaam Bougane réponse am dañ ko ko bindaloon avant même muy déposé. Mm-hmm. ñun la solution c'est une des questions yoo xam ne boo société civile mu ngi une wax. Mm-hmm. plateforme bi ñuy teg des forces vives de la nation dinañ ci wax. loolu dañ war a man bariwuma ñu ma classe politique bi ñu parrainage ñu ci bëri dañuy wax 8 mai. Mhm. même CDAO dañuy wax 8 mai dañ naan war nañu mën a def filtre quand même bañ a am ay 50 ay 100 candidats waaye mais nañ ko jaarale yoon. Mhm. am na nag ay jéego yu ñu def par exemple boo xoolee euh, élection législative yi par exemple le fait que ñu dugal tirage au sort bi kan mooy njëkk teg esa dafay dafa dindi ci tension bi lu bari. sànq maa ngi liiraat calendrier élection présidentielle bi maa ngi gis ne ñu ngi ci bind ne bu ñuy déposer parrainage entre le 11 décembre et le 26 décembre bi di ñëw dañ def suivant le premier venu buñ ko defee suivant le premier venu ça veut dire que delluwaat nañ gannaaw ça veut dire que comme 2019 lay doonaat ñu dem fa di fa xeex donc man je trouve que loolu par exemple Macky Sall quand il appelle au dialogue man dialogue politicien yi nga xam ne dafay woo di dil di naxaate waxuma mais am na question yoo xam ça nous concerne nous tous pour le choix du futur président war nañ ci mën war nañ mën a par exemple discuter du parrainage mais nag ñun Abdourahmane 2024 ñun gëmuñu ne dinañ am problème parrainage. te ñu ngi mm. ciy liggéey te teg nañ suñu cap teg nañ suñu stratégie xam nañ logiciel yi ni ñuy fonctionner. Mm. jàng nañ droit am nañ ay économétristes am nañ ay statisticiens parce que n'oubliez pas que même si je suis premier pour la première fois candidat à l'élection présidentielle mais maa ngi ci langue politique yi. fi ma bokkoon législative yi déggoo leen ñu benn yoon ñu am problème mu parrainage ñun bi ñuy dem xamoon nañ dañuy déposé dañuy jàll. candidat bi ma àndaloon tam Idrissa Seck amul problème mu donc am naa expérience ci question parrainage. ñi ma àndal am nañ ci expérience te bu soobee yàlla loolu du ñu téye. candidature yi bëri na am na ñoo xamante ne ne dañoo laale ak justice euh, tey ñenn ñu ñu ngi jàpp peut-être que ne euh, ki di Karim Wade ak Khalifa Sall euh, def nañ cinq ans war nañ mën a recouvrer li nga xamante ne moom moo di jëm seen droit civique en tant que juriste naka nga koy jàngatee est-ce que loolu am na wala am man day bon bëgguma dugg ci waxu jàmbur yu bëri mais bu ma doon Karim ak Khalifa ci 30 jours yi nii damay dem inscrire yi gars il faut pas parce que bu dee dañ leen radier woon nañ dem inscrire ñu xool nag lan la leen gouvernement du Sénégal réservé mais bu ñu bu ñu toog rek di xaar da ngay def li nga war a def bon je n'ai aucune prétention jox leen ay leçon. mais dama gis ne kenn waxu ci may fàttali ne képp koo xam ne nekkoo woon candidat parce que dañ la radier woon ci liste bi gars yi débrouillé nañ ba inscription yi bi pas un mois kese la presque une semaine dem na nañu dem inscrire après nag bu ñu leen di teg injustice ñu ànd ak ñun xeex ko parce que loolu mooy intéressant intéressant ci plateforme bi di ñëw. droit bi pour mën a poser au candidat. nañ dem inscrire xam nga nit ñëpp dañu am droit bi à la base. Mhm. après état bi mooy décider dindi la wala bàyyi la foofu la injustice bi mën a ñëwee mais ku nekk li nga war a def def ko. boo ko defee nga xamné yow tu es quitte avec ta conscience pour man nak loolu moy utilité plateforme bi ñuy créer et c'est là où j'appelle toutes les forces vives de la nation dafa am combat yo xamné gisuma ben candidat bu nek di combat boppam. Mhm. parce que daf lay daf lay isolé noggatu la bo daano mu paré isolé kenen noggatu ko pare isolé kenen noggatu ko ñun ñëpp nak bu ñu jàkkaarloo ak mom bo deful nank ñun ñokay avec tout le respect. Mhm. Il disait que ce n'est pas en faisant euh, la vision du président Ousmane Sonko que vous allez y arriver. J'aimerais bien euh, nga wax répondre peut-être ci kàddu comme quoi que euh, lui il prétend que euh, photocopie du du du ne sais original. kooku de defe naa ñi ko waroon tontu <laughs> tontu nañ ko ba je suis un vrai parce que Sénégal gis nga fi mu jëm soxna si dafa am solo ba nga xam ne instant vie du ñun entre opposants ñoo war a nekk di tojante bopp li may wax je le pense sincèrement du ñun opposants ñoo war a toog di reyante bopp dañu am une contradiction principale face à un seul problème ce problème s'appelle Macky Sall nañ fexe ba réglé ko bu Abdourahmane Diouf indi stratégie Déthié Fall indi stratégie Ousmane Sonko indi stratégie Khalifa Sall indi stratégie ñu bale suñu doole yépp lijjanti problème mu Macky Sall bu ñu paree nag foofu laay waxee souvent ne j'appelle au débat parce que bu ñu paree ba am candidat président sortant boo xam ne moom nekkul candidat bu mu wér ñun bu boobaa ñu dem ci jongante bi mais jongante boobu débat lay doon. mais lan moo tax nga lan nga xalaat ne moom moo tax mu dem ba yegg foofu. kookal la Balla Gaye du du du jàkkaarloo ak. yàggu jàll beeg propos yoo moom mënu ma vraiment bëgguma dugg ci. ci logique boobu man daal li ma xam. qu'est-ce qui s'est passé yéen ñaar euh, wala wala. non man est-ce que xam nga ne kooku mosuma ko gis moi je le connais pas je le vois à la télé c'est quoi indi peut-être ou la <clears throat> sortie je ne sais pas je je sais pas ne sama kan sama en background sais Abdourahmane Diouf c'est que jar xam nañ école primaire terminale. Ah. université Gaston Berger Genève Berne liguey xam nañ ko xam ak xamul xam nañ ko d'ailleurs de publicité parce que amul affaire u xaalis dinaa des séances de présentation de mes livres j'ai au moins 6 à 7 livres Je xam maa signé dans tous les domaines de la vie économique et sociale Je koy dajale def ko présentation au public. est-ce que souvent du wax. man man souvent même di def j'ai fait ceci cursus bi gis livre très intéressant mhm. vous êtes très apprécié. ci li nga ngay def ci mhm. et tout. Mhm. mais souvent da nga koy da koy yëkkati lool. taf ko est-ce que du loolu moo mu déedéet parce que parce que kàddu vraiment bëgguma woon taxaw foofu mm-hmm. mais bu nit taxawee ne kii kat la muy def dafa am feneen bu mu ko jële du xam-xamu boppam lay waxaale ah bu boobaa nag man taalibe laa doomu daara la d'accord ma sax ne man damay fëgg dënn mais bu ñu la waxalee lu mel noonu di nga fàttali nag sa jaar-jaar très bien wane ne man li may wax ah, ah. déggu ma ko ci ay magnétophone jëlewu ma ko ci internet xam nga man ban chance laa am par rapport ak homme politique yu bari mm-hmm. li nga xam ne débat politique bi dafa coïncider ce que je xam nga par exemple vous bu un biologiste je rends hommage aux biologistes parce que j'en ai rencontré hier quelqu'un de très brillant Nous avons nekk ci débat bi le patriotisme économique la constitution ak du peut-être mën wax mais le débat public sénégalais mooy institution. Mhm. mooy droit constitutionnel loolu laa jàng. Mhm. muy patriotisme économique loolu laay liggéey. depuis plus de vingt cinq ans. donc dama am chance. Mhm. samay métier dafa ànd ak politique li muy liggéey. Mhm. moo tax bu ma ciy wax yooyu dafay génn. may man Fatou. alors loolu moom du ma bàyyi mu jàll man duma ma koy fëgg dënnam man ci daara laa yaroo. <laughs> au contraire dañ may wax sax ne jaayoo sa bopp lu bari. waaye nag bu ay kilifa ñoo xam ne dama jàpp ay kilifa bu ñu taxawee. ne Abdourahmane li muy wax du xam-xamu boppam. maanaam oustaz Mohamed. maanaam waa ji nee na li may wax solow ma ko. dëgg la bu ma buxaar bu bu ma <laughs> buxaari waaw nee na du ma buxaari <laughs> du ma muslim <laughs> ah may fàttali rek ne li ma wax maa ko soloo te dinaa wone fi nga xam ne maa ko soloo mais li am solo mooy nag opposant bu nekk indi sa contribution ñu jàkkaarloo ak Macky Sall temps dafa dafa jeex tàkk mhm. mais de de de côté ñaar ñaar ñee toog dañoo bëgg euh, poser peut-être euh, question donc da mhm. koy boole mu mu répondre ko euh, tàggatoo waale en même temps. j'ai juste une petite question. Mhm. Euh, justice en fait parce que elle est contestée. Euh, par justice ouais, justice. Mhm. elle est contestée de partout euh, lan la ñu a xaar